li njëkk wax moom mooy ci assemblée nationale bi déclaration de politique générale ñu gën ko olofaliser pour euh, ñi nga xam ni dégguñu nasaraan wala compréhension bi du yomb ci ñoom donc euh, li ñuy fi ñu njëkk a tàmbale dañuy dem assemblée nationale assemblée nationale kuréel boo xam ne la ñu fa nekk ay woy ñuy war a teewal askan wi ndem nag ñu koy choisiree Euh, wute nag ñu fa toog toogal fa askan loolu lépp nag problème bi ci choix la nu ñuy jëlee ñi ñuy jëlee député yi da ngay gis ay député yoo xam ni ñi ngi ci list bi dañoo yoreel askan wi xaalis am ay député yoo xam ni ay ancien ministre lañu woon ñu këpp ay kees am ay député yoo xam ni dañoo sàcc seen mairie donc euh, ay député yoo xam ni bu doon ñoom kese la kenn du leen voter donc da ngay gis ay bandi salté ay wëyu yu ñu dugal ci ay liste ci biir ay liste ñoo xam ni ay délinquant foncier lañ financier ay caga bordel lépp ngi ay dañuy doon ay député Sénégal malheureusement parce que nu ñuy choisir député la ki day ñëw indi liste bi liste bi nag benn bande ngi ci biir benn cagaa ngi ci biir benn sàcckat ngi ci biir benn trian ngi ci biir benn agresseur ngi ci biir lépp ngi ci biir donc jaxase ménage panacé la ñu ñëw proposé donc gars yi dem élection donc yaa ngi voteel benn nit bu baax ci biir yaa ngi voteel bandi ci biir yaa ngi voteel sàcc ci biir donc bu te buñ ci seppoo bu ñu leen seppoon benn par benn kenn du leen voteel te souvent boo gisee ni ñu leen di ni ñu leen di mooy dangay gis benn sàcc bu nekk dëkkam ñu jox ko benn poste muy sàcc alal gi di ko jox askan wi maanaam tey nga doon benn maire sàcc alal gi jël yenn suuf si mayee ko yenn yi nga jaay ko yenn yi nga jël pàccoo wut say chaise dajale gars yi jël ay kart et cetera cetera du léegi dañuy dañuy jàpp ni kooku nit la bu leen amal njëriñ parce que lu tax parce que am na ay xar ak ay bëy yu muy alimenté am na mi ngi sàcc alalu askan wi di ci jënd ngooñ di ko jox ñenn ñi ci askan wi di jënd repas di ko jox ñenn ci askan wi di jënd di dagg ay ñax di ko jox ñenn ci askan wi ñuy yéey donc ñoom kooku arrangé na leen moom mooy politicien classique boo xam ne ñoom arrangé na leen léegi kooku la ñuy jël dugal ko ci seen i euh, liste kooku dem assemblée nationale léegi plus que mu ngi dem assemblée nationale am ay poste dina mun a am lu muy amaat di ko joxaat di ko jaxaat gars yi di ko di leen corrompre donc souvent noonu la ñuy jëlee da xool ku ci ku nekk ci dëkk ba ak lu mu mun a doon background am day doon keerabaa l' essentiel mooy nan nekk koo xam ni mun na wut ay militant mun na wut ay nit di leen yàpp ci ay di leen yab ci ay saret wala di leen dugal ci ay kaar wala di leen dugal ci ay njaganjaay waree fa tant que mi nga am ay nit rek donc kooku ñoom arrangé na leen dinañ ko jël di ko mun a mu mun leen mu mun a dundal seen parti wala mu mun a euh, nekkal foofu seen parti donc souvent ñun noonu ñooñu lañ am ci assemblée nationale bi tey député bu ñu sepp yoon moom kese teg ko Sénégal ne votel leen kii gars yi duñ ko votel parce que bu ñu xoolee démbam ak bërki démbam et tout et tout duñ parewuñ pour votel ko donc loolu lu ñu war a defaraat la lu ñu war a defaraat ba ba kenn ku nu indi listam da ñëw xam nga équipe équipe day mel ni équipe booy dem football dañuy jël 22 mais ñi dugg ci terrain bi onze la mais pourtant 11 yi duñ ñëw indi seen list dañu leen tegaleen 11 yi ñan lañ des fois ngeen gis ñu tegaleen benn gardien yéen ñëpp ngeen ne non gardien bi baaxul bugguñu gardien bi donc pourtant 11 la ñuy indi 11 équipe 11 yi dañu leen di woon joueur bu ne. des fois ñu jël benn benn joueur teg koo ailier ngeen ne non baaxul foofu parce que équipe bi ñu war a football tel joueur moo fa waroon taxaw donc gis nga ni ngeen di participer noonu parce que dañ leen di woon on e équipe bi équipe type bu war a dem jouer yi dañ leen woon liste bi. mais Sénégal malheureusement liste bi da ngay gis à la dernière minute la gars yi di gis liste bi liste bi da gis lu nekk ci biir lu nekk nga ci biir liste bi ay nit yoo xam ne amuñu benn patriotisme bëgguñu sax seen réew waxuma laa toog assemblée nationale dañuy xeexalaat donc léegi ñooñu. da ngay gis chaque jour député yi bu ñu demee biir assemblée nationale dañuy wax ni askan wi falu leen dañuy wax ni parti bi leen fa yóbbu moo leen fal donc ñooñu ay député parti bi leen fa yóbbu la donc léegi kon Sénégal ba suñu jon yàlla tey amagul député du peuple député bi peuple ay benn ñaar ñett la benn ñaar ñett assemblée nationale bu plus de cent soixante députés boo xoolee ay deux députés la ñu am yu yoo xam ne askan wi lañ fa toogal ngeen gis la euh, passage Sonko biir assemblée nationale ça a été marquant parce que asa peuple bi la fa toogal am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam benn ñaar ñett la Guy Marius Sagna passage am assemblée nationale ñëpp reconnaître nañ ne peuple bi rek a ko ñor gis nga ñooñu nag benn la ñu doon ci biir cin benn ñebbe la ñu doon ci biir cin lu ci des yëpp ay député parti politique lañ ay député parti politique lañ ay ay parti bi moo leen fa teg bu parti bi bëggee dañ naan waaw bu parti bi bëggul ñu ne déedéet seen yoon newul ci arrangé na dëkk bi wala arrangé na askan wala arrangé wu leen day doon care faale wuñ lool donc noonu la assemblée nationale di faral di doxe sonn nañ ci nag xeex nañ ko wax nañ ci euh, euh, même euh, élection yi passé liggéey nañ ci liggéeyu yu mucc ayib malheureusement gis ngeen ak Macky Sall dissoudre na liste ba bu ñoom Sonko def ay jëm def et cetera et cetera ba ba génn majorité malgré que soriwul mais fexe na ba am majorité donc noonu la ñuy faral di toroxalee peuple bi noonu la ñuy faralee di sonnalee peuple bi di leen proposer du n'importe quoi donc loolu lu ñu war a xeex la lu ñu war a xeex la ba nga xam ne léegi assemblée bi ku fay dugg doo fa duggal parti politique mais da ngay dugg ak ñi nga même bu dee parti politique parti politique boo xam ne newuñ di jël ay militants élection yii di ñëw di lañ ci xeex xeex bu mucc ay ba nga xam ni ngeen jël ay nit yu leen yàgg a teewal même bu ñu bokkoon ci parti politique bu leen parti politique yi investirul ñun peuple bi danañ taxaw pour ngeen xeexal pour ngeen jël ñooñu parce que ñooñu dañ leen mus a taxawal dañoo mus a taxaw fii parce que parti politique yi souvent dañuy jël seeni nit ñoom dañuy choisir seen i nit wutuñu lu peuple intéressé peuple déedéet dañuy choisir seen i nit yoo xam ne seen i seen i militants ak seen i partisans lañ ñu jël leen proposer leen askan wi te façon bu nekk mi ngi ci biir donc bii di ñëw dinañ def ba nga xam ne assemblée nationale pour une première fois populaire pour population bi ngeen jël ñi nga xam ni ñoo leen yàgg xeexal te bokkuñu ci benn parti politique wala identifié wuñ ci benn parti politique yàgg xare ngir yéen ñu tëj leen gaañ leen yàq leen lu ne def nañu leen ko te yor nañ xel bi yor nañu euh, euh, xam-xam bi yor na et cetera et cetera yaakaar assemblée nationale c'est pas compliqué ku ci mel ne benn Cheikh Omar Diagne ku ci mel ne benn euh, Guy Marius ku ci ku ci mel ni benn Karim Xrum Xax ku ci mel ni benn caat wala benn et cetera et cetera ku ci mel ni benn nit dof ku ci mel ni benn euh, Morgan ku ci mel ni benn keneen ak keneen ñi nga xam ne bëgg na ñi nga xam ne ñii ñu ci benn parti te musuñoo trahir peuple te dañoo mus ànd ak peuple bi. ñii boo leen comme boo leen joxul dara lañ leen di xeexal waxuma laa nag bés boo leen leen joxee place pour ñu xeexal leen bu boobaa dinañ gat seen bakkan dinañ fa teg seen bakkan mais te ànduñoo parti bu mu mun a doon boo fi bëggee votelu loolu dëgg dinañ taxaw ne dëgg du dëgg du yoon te duñ ko nangu. donc il faut que ñu fexe ba nga xam ni dina mun a am balance boobu noonu ngeen rayante ba nga xam ni peuple bi dangeen di jël ñoo xam ni dañoo rayante ngir yéen tey yéen rek lañ gëm gëmuñu leneen jaamuwuñu benn parti politique jëluñu seen bakkan bi jox ko benn parti politique bu téye leen di leen manipuler di leen yóbbu ci lu ko neex ak nag lii moom ma neex wala lee moom ma neex lu neex askan wi rek moo leen ñor maintenant loolu benn problème la boo xam ni incha allah avec le temps fii muy am. Euh, élection législative dinañ ci gën a waxtaan ba nga xam ne dañuy am benn ëpp euh, euh, euh, pouvoir législatif boo xam ni pouvoir législatif bu am doole boo xam ni incha allah peuple bi dinañ ci gis seen bopp mais ñi teewal député du peuple duñ doon ay benn ñaar ñett be dañuy doon ay nit yu taxaw pour peuple bi voilà bu weesoo loolu Euh, li am tey moom mës a am Sénégal bi fi Abdou Diouf nekkee moo amoon majorité assemblée nationale ay majorité écrasante nag ay majorité yoo xam ne maanaam dañ ñoom parti au pouvoir bi dañuy négocier ba trois quarts bi ñoom ñoo koy moom ci député maanaam bu dee député quatre quarts la quatre quatre quatre quatre quatre ñoom ñi ñoom ñoo moom trois quarts yi ñoom lañu musa ñu mus a mu amee Euh, majorité assemblée nationale Abdoulaye Wade bu mu ñëwee dafa daane assemblée nationale bi parce que kenn mënul diriger ci réew parce que réew ay loi moo koy taxawal ay loi moo la ñuy rédiger moom moo yorob réew réew ci ay loi lay dox ak ay réglement loolu nag assemblée nationale lañ koy voté donc nit mënul jiite maanaam xam nga dañoo jël Sonko ak jomaay jomaay leen jël def ko chauffeur ñu jël sonko def ko apprenti mais oto bi dafa am lu koy dawal ay essence dafa am lu koy dawal moteur bu baax dafa am lu koy dawal dafa am oto maanaam oto bi ñoom moomuñu ko léegi lii dawal oto bi ak kañ la war a daw ak horaire bi ak lépp mu ngi dépendre ci assemblée nationale donc ñoom malgré teg ngeen chauffeur teg ngeen apprenti clients yi taxaw nañ mais du mun a daw tant que assemblée bi joxul jour ne tel jour la war a daw tel jour horaire la fii la war a taxaw fii la nangam nangam donc ñooñu tant que joxuñu joxoo leen li nga xam ni ñoom ñooy choisir kañ la oto bi di daw kañ la oto bi di taxaw fan la war a dawee fan la war a jëlee et cetera et cetera kon joxoo leen dara donc bu fekkee nit ñëw na doon nga jox ko président ñi kii doon premier ministre boo leen joxul assemblée nationale bi joxoo leen dara loolu maanaam mirage la rek dañuy taxaw xaw amuñu lu ñu réglé parce que bu loi bu ñu dugal ñu rejeté leen ko. projet bu ñu dugal ñu sànnil leen ko fële et cetera et cetera donc duñ mës a dem donc président bu ñëw il faut mu fexe ba mun jël loxoom teg ko ci assemblée nationale pour mun a doxal politique am yéeneem ak bëgg-bëggam ak projet am loolu assemblée nationale lañ koy voté donc Abdou Diouf bi nga xam ne Abdoulaye Wade gagné na ko en 2000 dafa dissoudre assemblée nationale bu mu ko dissoudre ñu demaat élection. mu am majorité garantie pour mun a doxal nag projet ak politique am nii la demee Abdoulaye Wade def deux mandats bu muy dem ay député ñoo newoon foofu majorité Macky Sall bu mu ñëwee comme Abdou mbay la dugal ñoom Abdou mbay toog nañ plus de huit mois yoo xam ni defuñu déclaration de politique générale lu tax parce que dañ newoon ñoom dañuy xaar lii fi am nii amoon na fi ci Abdou Mbaye donc Macky Sall bu mu ñëwee def ne day xaar ba daane assemblée nationale bi ñu dem élection législative mu gane ko am majorité garantie assemblée nationale c'est bu boobaa premier ministre muy Abdou mbay mii nga xam ni ci euh, euh, hôpital Le Dantec terrain boobu noonu ci ginnaaw yëpp 80 pour cent yi moom moo ko moom mu sàcc suuf si dossier yaa ngi fi Abdou Mbaye mii ngeen gisoon sàcc na suuf su bëri ci hôpital euh, la Dantec bu ñu daggoon suuf soosu boo demee ci kayitam Abdou mbay moom moom na fa ay hectares hectares hectares ñu ñu seddoo bu mu nekkee premier ministre et cetera et cetera donc mooy ñoo xam ne amuñu sax bu bu doon ay gor lañ duñ sax ubbi seen i parce que ay sàcc lañ mu sa doon voilà donc euh, donc Abdou mbay moom newoon premier ministre Macky taxaw nañ xaar ñoom. ba ñu dissoudre assemblée nationale donc moom temps boobu demul def déclaration de politique générale moom Macky Sall moo ko njëkk a def bu mu ñëwee dafa toog moom ministre am ñu toog jël seen temps def nañ presque un an yu manqué ay deux trois mois pour pour mu mun a jël seen temps dissoudre assemblée nationale ci lañ dissoudre assemblée nationale defaat ay élection moom Abdou mbay ñoom ñu léegi ñu am majorité garantie Abdou mbay doog a jow présenté bu muy présenté déclaration de politique générale ci kanamu député yoo xam ne am nañ fa majorité donc bi fa député mag Ablaye Wade yi nekkee deful déclaration de patrimoine de déclaration euh, de politique général dafa xaar ba ñu def ay élection ñoom ab Macky sàll pour ñu mu am majorité mu mun a dem def déclaration de politique générale donc fële laa ko tàmbale ci Ablaye Wade parce que euh, Abdou Diouf dañ ko joxoon euh, Senghor da ko bàyyee woon da ko bàyyee woon réew mi donc après lu si des yëpp moom moo fa nekkoon donc Abdoulaye Wade dafa daane assemblée nationale tàmbalewaat ko def élection am majorité premier ministre am def déclaration de politique générale ab mu def ko mu def douze ans nice géré nu mu ko neexee yàqalu ko donc kii ñëw ki nga xam ne moom mooy euh, Macky Sall Macky Sall it bu mu ñëwee dafa daane assemblée nationale bu Abdoulaye Wade jël temps am moom def élection placé ay nitam nitam yi gagné mu dugal premier ministre mu dem def déclaration de politique générale donc nii la mës a léegi lan moo tax Sonko moom mooy kumba amul ndey bi nga xam ni président mësu fi taxaw defu ko moom mu ñëw war a mën a dem tàllal euh, baatam ay député Macky Sall ñu rendi ko loolu amul fenn fenn fenn amul fenn ba ci France bi ngeen di gis nii dañoo daane seen assemblée nationale ñi ngi noonu dem ci ay élection donc loolu peuple bi sax moo ko dul bu ko Sonko doon pare sax peuple bi du ko ko nangul parce que kenn mësu ko fi def te du tey lañ koy nangu ñun xeexuñu jël suñuy carte sànni peuple bi mooy souverain sànni suñuy carte rey suñuy bopp ñu rey suñuy doom gaañ ñu lu ñu dajalul amul ñuy seetaan suñu premier ministre bi nga xam ne dañoo teg gouvernement di dem assemblée nationale di ñi leen fay manquer respect di teg ay motion de censure et cetera ñun peuple duñ ko nangu. peuple mooy souverain duñu mus a jël ñun ñun on se sent pas à l' assemblée nationale ñun sentiruñu ñu ñoom ñun peuple bi ñoo nekk assemblée nationale. ñu nekk assemblée nationale yéen yàgg ngeen leen xeex ay ñoom Koura Macky ñoo fa nekk et cetera ay ñoom Dimboori Sow ay ñoom euh, ñi doon xeex ñu àndoon góor jigéen yi et ñoo fa nekk. ñooñu ñun bëggu dara bëgguñu dara ci ñoom musuñoo voté lu arrangé peuple bi bu ñuy rey peuple bi ñoom ñoo ne force reste à la loi loi yu ñu voté rek la yëpp moom mooy écraser leen peuple bi rajaxe leen peuple bi Macky Sall rayee la maximum lu war a dem bu ñu dem dugali euh, li nga xam ni moom mooy voté loi amnistie dañoo àndoon encore bi Macky Sall toogee ba mu neex ko lekk maafem bu saf sàpp dafa xëy rek ne damay disu euh, damay dindi premier ministre ci la demee jox ko député mi député yi voté ñu dindi premier ministre donc bu ñuy dindi premier ministre nag dañoo dindi lépp kon réew mi premier Macky Sall dafa dindi premier ministre ne premier ministre amatul moom mooy buum mooy buum mi mooy yàlla mooy yenentu bu Sénégal donc mu gouverne na fii sans premier ministre moom Macky Sall donc assemblée nationale dañoo voté woon waa boo xam ni dafa dindi premier ministre premier ministre existé ci kan ci ndigalu seen papa seen yàlla mi nga xam ne moom mooy Macky lu mu bëgg rek ñu defal ko donc loolu moo nekk ci règlement intérieur dañ ko modifié woon ba suñu jon na yàlla tey changé waatuñ donc ñoom dañoo jàpp ni premier ministre sax amul Macky Sall dafa toogaat toogaat toogaat lekk lu mu ko neex foofu mu neex ko mu toogaat rek ne en un clin d'œil comme ni ko yàlla di defee tak damaa soxla premier ministre ki la woo même jour yéen a ngi koy ko Amadou Ba Amadou Ba ñëw euh, costume trois quarts yi nga dam maami euh, mbàjj mel ni ku sëlmuwul takk ndombo yi ci ci ndiggale ba ci bopp bi donc je vous vous souvenez très bien donc noonu la indaatee premier ministre donc waa ji mooy yeewu ne dindil li yeewu waat heure bu ko neexee ne ko tegal ma ko fa donc noonu la ko Macky Sall doon doxale par rapport ak benn buur boo xam ni dafa am ay envie day yeewu xam nga naan kafe gi saful xorom wala saful suukar mu saaga ne dindil lan ma lii toogaat lekk benn affaire bu bëri kaani mu ne mbur saaga kii ndey toogaat lekk nu neex mu ne tegaatal lan ma fa donc noonu la Macky Sall doon doxee léegi dañoo dem ba député bi dañoo réer ci waa ji parce que xamuñu waa ji mbëfër la guuxi lex réew beew xam yoonam nekku ci saa yu yeewoo rek de envie bu mu am lay lay doxale donc ñu dem ba assemblée nationale nag mënatuñ topp waay yi ci ci lu mu bëgg parce que danaan teggil li ñu teggi su ma mun mën leen tegaat loo ko fa yóbbul ma ko fee yoo kii xam nga bëri ay bëgg-bëgg ak ay bëri ay santaane donc assemblée nationale boobu bu ko Macky Sall dindee bu mu dindee premier ministre ci biir assemblée nationale ba léegi defaatu ko fa donc bu mu yeewaatee tegaat fa premier bi ci sañ-sañam la mais loi yi règlement yi dañ koo changé woon donc fu nekk ni assemblée nationale premier ministre amul premier ministre même kii bi nga xam ne ñëwaat na Amadou Ba bu mu ko indee bu mu ñëwaatee def na fa déclaration politique générale mais changé wuñu dara ba léegi Amadou Ba sax amul légitimité bu mu taxawee woon di parce que premier ministre existé wul woon Macky Sall dindi woon na ko ba bu ko indiwaatee changé wuñu dara dara dara ci feuille ñu continuer <laughs> yàlla nag buy defar day mel ni yàq boobu yëpp buur Macky Sall mi ngi jàpp ne yàlla la di di buuma ko bummi boobu xamul ni mi ngi defaral sonk léegi sonk bu mu ñëwee nag dafa fekk lépp day yàmbalaan Sonko yàlla moo ko defaral yàlla moo ko defaral moo tax gis nga Sonko boo boo xamee dëgg dëgg dëgg pouvoir yàlla da ngay maanu ci ay mbiram xam ni kii yàlla moom moo ko yàlla dafa am ay nitam nag yàlla loolu yàlla mooy choisir ku ko neex peuple juif bii la jël ne peuple juif bi mooy peuple te gis ngeen ci lu ñu ne mais ci ba alxuraan ba mu demee daf ne peuple juif bi mooy peuple donc moom moo xool da gis koo xam ne gëmu ko respecté wu ko joxu ko cër di def lu ko neex gëmu ko sax yàlla di ko baddil di ko jox alal di ko jox wér di ko jox xam-xam di ko jox donc yàlla moom moom moom moom moom moom mooy kaamilan quoi moom mooy lu mat sëkk sëkk sëkk boo xam ne moom lu muy def te du ci tàggu kenn du ci laaj kenn noonu la yàlla choisir ci biir Sénégal moom ko jël ko rek nii xool ko du ci rafetaay du ci dara amul lu mu dàqee nit ñi rek jël rek choisiral ko boppam xëy na lu mu doon dund la ci ay injustice wala et cetera et cetera mais yàlla daa xëy rek faralal ko faral ko faral ko am lu mu rof ci moom loo xam ne fu mu taxaw ñëpp bàbbee ko waaw moom mooy rahman moom mooy rahim fu mu taxaw rek ñëpp bàbbee ko loolu yàlla moom moo ko def ci moom Macky Sall malgré mi ngi buuma ko buum mi di changé di dindi mais mi ngi defaral waa ji mu baliser ko terrain sans mu yëg ko léegi Sonko bu mu ñëwee ñoom ñu falu mu toog mais jàppale ne assemblée nationale règlement intérieur bi dañ ko changé woon ci Macky Sall bu mu dindee premier ministre donc assemblée national xamul premier ministre amul fu ñu bind ne premier ministre am na fa de dañ koo dindi woon ca jamono yi. bu mu njëkkee Macky bu mu dindee affaire ministre ci lañ changé modifier règlement intérieur donc assemblée nationale nan lay réclamer Sonko tey moom xam xàmmeewul Sonko xamuñu Sonko ñoom xamuñu Sonko ñoom jàpp ne sax Sonko existe la ñoom amuñu lu ñuy wax ci ci ci lu mel parce que affaire bi daf leen a ëpp doole donc dañoo modifié woon li nga xam ne moom mooy réglement intérieur yi donc Sonko amul benn droit taxaw fa bu fa taxawee sax. moom hors la loi la Sonko bu demee assemblée nationale taxaw fa hors la loi la parce que loi mayewul pour Sonko dem fa naan day def déclaration de politique général parce que ña fa nekk ñoom reconnaître uñ ko moom reconnaître uñ ko parce que euh, ñi fa nekk di dox ci benn règlement intérieur boo xam ne règlement intérieur ba amul premier ministre nekkul ca nekkul ca feuille dañ koo baare woon donc man du ma dem di taxaw foo xam ne reconnaître uñ ma fa non. du ma dem taxaw fu ñu ma reconnaître donc comme moom reconnaître ñu ko fa amul droit sax dem taxaw warul leen sax lijjanti moom peuple bee ko fal peuple bee ko fa teg na lijjanti li muy lijjanti premier président bi nga xam peuple bee ko fal moo ko fa teg moom na lijjanti président bi en attendant peuple bi réglé waat lële ba mu mat sëkk ñu génne ñooñu dégagé leen ñu changé nga xam ne ñu bu boobaa dina mën a dem def déclaration de politique générale devant benn assistance boo xam ne peuple bi ñoo leen fa teg mais du ay nitu Macky Sall léegi nag ñoom lan la ñuy bëgg saboter loolu moo tax ñuy wax chaque jour euh, gouvernement Sonko Diomaye pour ñu accélérer mbir yi parce que euh, alerte yi ñuy def xam nañ ko quoi gars yi sabote liggéey bi la ñu jógtee te te mënoo jiite ci ci benn pouvoir boo xam ni dafa biir buy daw la dafa jaxasoo mënul nekk changer ay ministre ministre yi nekk boo duggee ci bureau ba waa APR ya fa fees dall administration bi APR lay xeeñ fii partout loolu nit mënu ko jiitee mënu ko diriger lii rek mooy musa am nag tant ñoom raxasuñ leen bañ set wecc lii moo fi musa am lii doo leen ci jeexal de dina ñëwaat de dina ñëwaat de parce que ñoom ñoo raxasul ñoo balewul complètement kër gi kër gi boo ko balewul ba mu set ak loo fa mun a def ak palaa boo mun a togg boo ko fa tegee nit yi dañ dul am sax fu parce que gis ngeen gars yi nu ñu yàqee foofu donc balaa dara da ngay bale ba mu set wecc tuur mbalit ma fobeere ba mu set bu boobaa nag même bu dee amuñu lu ñu lekk sax gars yi dinañ toog jéem a xool fu toog sax ci jàmm mais lii nit mënu ko diriger parce que dara dara dara exe exécutif bi ñu ngi fa fees dell ñoom ñoo nekk ci administration bi ñooy nekk ci post yi ay DG lañ ba léegi ay euh, daaf lañ ba léegi ay secrétaire général lañ ba léegi ay directeur technique lañ ba léegi donc ñu ngi fees dàll ñoo fi nekk donc ñooñu mënuñu jaxasoog ñu Sonko ak Jomaay mais nii rek la ñuy kawo la ñuy nekk ba pare ay noonu la ñu nekk interne kawo bi day yomb day yomb donc dina metti ci sénégalais jamono ji tant que ñooñu raxasuñu ba mu set wecc bale ba mu set wecc di nii la ñuy dëkkee nii la ñuy dëkkee gis ngeen ko barkaat démb diggante un mois coow li yëpp day wane ni ñoom ñi ngi ci ñi ngi ba léegi ci système bu président demee Paris gis ngeen quoi gi fa am jaxasoo gi fa am lu tax parce que ñoom ñoo nekk ci chancellerie yi ñoom ñoo nekk ci ambassade yi ak conseil ñu ñëwati fii Sénégal assemblée nationale ñoo fa fees dell ñu ñëwati encore chaque jour nga gis ñu fal koo xam ni ñoom la coow li nekkul kon donc ba léegi judi euh, judi justice bi tam ñoo fa fees dell ñoo fa dara changé wu fa. donc loolu moo tax nii lañu nar a continuer ni nekk ci marathon boo xam ne duñ fi jóge tànk ñoom raxasuñu ba mu set wecc jël ñoom ñëpp sànni ca xaj defar ñoom ñoo dem sax bay démissionner parce que xam nga day wane ni yéen yéen comme yéen yéenay yeexantu xaaral sax ñu démissionner yéen yéen leen di gis ñu ngi démissionner donc léegi comme ñoom ñu ngi assemblée national foofu lañ nekkagum. léegi dafa am lu ñu naan motion de censure motion de censure mooy c'est le moyen principal boo xam ni assemblée nationale da ko disposer pour désapprouver politique gouvernement. mooy maanaam bu ma koy bëgg a wax ci wolof bu gàtt bu ko ñëwee déclaration de politique générale mooy ñoom dañoo toog ñu ne jox ngeen leen réew mi léegi. ban politique lañ war a def ci côté sante pour santé bi baax ci côté justice pour justice bi baax ci côté infrastructure et cetera économie ma maanaam ñoom dañuy tënk nan la ñu bëgg a yoree réew mi ci côté yëpp éducation santé et cetera et cetera nan la ñu war a yoree réew mi ban politique la ñu am pour mun a yor réew mi ak lan la ñu soxla ci am-am ak koom pour mën a doxal ci nu ñu bëggee yoree réew mi mais maanaam jox nañ leen oto bi assemblée nationale dañu leen wax ni fan lañ bëgg a jaaree fan lañ bëgg a jaaree pour mën a yegg de à destination loolu mooy déclaration de politique générale boo dajalee lépp ni nga bëgg a yoree réew mi ci yan tànk nga nar a doxee yan jumtukaay nga nar a utiliser yan koom nga soxla pour mun a doxal réew mi loolu mooy déclaration de politique général léegi nag assemblée nationale boo xam ne Macky Sall la fa ne nga ñëw taxaw jàkkaarloog ñoom boo xam reconnaître la déjà yow parce que yow nekkoo ci maanaam euh, assemblée nationale boo demee ci règlement intérieur yow existé wu yow nga ñëw taxaw yor sa loolu lépp préparé ko loolu yomb na préparé nañ ko ba yor nañ ko c'est vrai loolu c'est pas compliqué léegi bu ñëwee jàkkaarloog ñoom wax wax wax wax wax wax wax ba pare léegi député Macky Sall yi ñu ne déposé motion de censure mooy lan mooy li nga xam ni kii li mu fi wax yëpp waxu fi tos loolu rek lay signifié waxu fi dara di na démissionné maanaam dañuy wax ni ñoom dafa am def eh, dañuy dañuy défier kooku lu mu proposé bu mu ñëwee lii laay def lii laay def bu a def bu côté santé lii laa nar a def ñoom dañuy toog nii rek bu ñu paree ne nañ de nañ déposé motion de censure motion de censure boobu bu ñu ko déposé mooy wone ni maanaam yow li mu fi wax waxoo fi tus dara waxoo ko fi. lu ngay wax amul njëriñ amul lu ñu njëriñ demul fële laful na le daaneel léegi nag motion de censure boobu day daane nguur gi day daane gouvernement wu euh, Sonko facilement ñoo am majorité malgré que wax nga lépp lu amal njëriñ askan wi ñoom dañuy ñëw rek ne na fi jóge dara waxoo fi dara lu baax donc day désapprouver la politique du premier ministre ba pare di ko pousser di ko forcer à démissionner donc pour témoigner sa euh, euh, défiance envers le gouvernement en place xam nga la kon loolu yomb na léegi Sonko moom mi nga xam ne moom reconnaître ñu ko fële reconnaître ñu ko ci ci seen i kayit moom assemblée nationale bu fa ñëwee wax déclarer politique générale am yëpp ñu ne bu comme ñoom ñooy majorité mooy député Macky Sall yi ñoom ñoo fi nekkoon majorité bu ñu booloolee teg motion de censure dañuy daane nguuru. Macky Sall te ñoom loolu rek moo leen yitteel loolu rek nguuru jomaay euh, dañ koy daane léegi gu assemblée nationale comme ñoom ñoo fa ne bu ñu voté motion de censure dañ leen fay jële mooy ñoom dañ ñoom député yi bu ñu dañuy dañuy daane nguuru Sonko te ñoom xam nañ ni nguuru Sonko ak jomaay ñi ngi leen fas yéene daane fi mois de septembre parce que ci la ñuy amee foofu deux ans bu boobaa. mun nga leen dissoudre comme nu France dissoudre président bi dissoudre assemblée nationale bi donc fu nekk nii ñu ngi def fexe na na na Sonko ñëw reconnaître ko mais na ñëw ñu dissoudre ko balaa munoo dissoudre kon mooy mel ni ray ma mbaama ray la kiloo bi kilit ray ma mbaama ray la comme yow man reconnaître ma boo ñëwee dama lay rey balaa nga maa rey parce que comme yow fii ak septembre danga ma nar a rey maa ngi fexe noo nax la ba nga ñëw ma rendi la malgré que reconnaître ma la fii donc loolu lañ nekk ñoom moo gis moo yéen Sénégal nguur gi ngeen fi fal teg leen fi xeex ba dee seen i doom dee ci seen i njaboot gaañu ci ñu teg ci seen i jëkkër ak seen i doom ak seen i jabar ak et cetera et cetera ñoom bandi yi toog fële ñoom bugguñu lu dul ñoo ñu ñëw ñu daane seen nguur ñoom ñeent bandi yooyu les quatre mousquetaires bandi caga jeeg góor jigéen yooyu nekk foofu noonu yu APR yi ñoom bugguñu lu dul Sonko ñëw te reconnaître ñu ko xàmmeewuñ ko parce que nekkul ci seen euh, ci seen réglement intérieur ñu éliminer ko donc est-ce que yen peuple bi di ngeen nangu loolu est-ce que yéen xeex gi ngeen fi xeex yëpp di ngeen nangu ko ñëw ànd ak ay nit ñu dem fële bande yi daj association de malfaiteurs association des prostituées de la république qui la paire taxaw dugal voté benn euh, motion de censure pour jëlee fa daane nguuru jàmbur nguur koo xam ni peuple bee leen fi teg. nguur goo xam ne peuple bi ñoo voté presque soixante pour cent presque bu manqué weccet est-ce que di ngeen ko nangu non ñun peuple duñ ko nangu donc Sonko mi ngi ci plein droit am plein droit mooy amul droit dem déjà droit mayu ko ko devoir citoyen mayu ko mu dem fa du droit du devoir citoyen du lu population bi bëgg du lu population bi di xaar ci moom kooku bu ko defoon sax il a trahi le peuple il a trahi les lois il a trahi les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale donc te góoma ni Sonko ak peuple bi fu ñu leen teg ak lu peuple bi jaayante dinañ tayle droit peuple bi ak bëgg-bëgg peuple bi pour rek bëgg a wane ni man guerrier laa devant ñoo xam ne reconnaître la déjà ndax seen règlement intérieur dàq na la Macky Sall la ko fa changé woon député président euh, premier ministre existé wu fa donc ngeen xamee ko noonu li ngay gis ñëpp ñi ñàkkam naan na ñëw wax na ñëw wax na ñëw wax déedéet na ñëw wax la pour ñu éliminer la balaa nga ñëw éliminer parce que ñoom xam nañ ni septembre dañ fay jóge dañuy dissoudre assemblée nationale président bi day dissoudre assemblée nationale bi assemblée nationale dañu demal élection législative comme nu ko Abdoulaye Wade defee woon comme nu ko Macky sàll defee woon donc noonu lañ koy fas yéene defaat dissoudre assemblée nationale en février dem ci ay mais Sonko amul benn droit dem population bi ñoo ko ko wax te loolu mooy dëgg amul benn droit teg tànkam assemblée nationale amul benn droit dara mayu ko ko lu dul xanaa. ñàkk bu ko defee mooy te góobu nit dina ko def mooy ñàkk respecté askan wi ñi ak yelleefu askan wi parce que député moom <laughs> peuple moo gën a door député ko koo gis ndax peuple mooy fal député maintenant yow menace la rek ay menace la buñ ko naree def peuple bi <laughs> peuple mos ñu ñàkk fayda de peuple bi tey la wàllu gën a aay de peuple bi APR loolu menace la rek ñuy nappaate naan ñoom dañuy créer léegi dañuy changer euh, loi assemblée nationale bi pour nga xam ni jomaay du mën a dissoudre assemblée nationale bi <laughs> nañ ko laal yéen a ngi fàttale car bloquant bu peuple bi génnee fii di xare ak mag Ablaye Wade de plus de douze morts assemblée nationale na na xolal te boobu no opposition la ñu woon de peuple bi léegi ils sont avec le pouvoir de bés bu assemblée nationale jógoon taxaw député Macky Sall yooyu nan dañuy changer loi bi pour kenn du mën a dissoudre assemblée yooyu keroog ngay gis ñun ay nit yu mel ni njéeréer billaay wallaay gis nga lu xew Kenya nañ ko def ñoom loolu moom loolu du affaire ko loolu nag boobu bu boobaa nag ñoom la ak peuple bi ñoom buñ demee ba dañuy dañuy changer disposition wu assemblée nationale protéger seen bopp ba nga xam ni kenn du leen dissoudre boobu peuple baay jóg. <laughs> projet de loi boobu sa waay eh, eh, bul ko ñaan a fekkee bul ko ñaan a fekkee xoolal si kon de xoolal ci ngay gis ay ñu cocktail molotov assemblée na ñoom ñëppay dee boobaa peuple bi nag lañ amal affaire boobu du Sonko de boobu peuple bee koy réglé boppam nu ko Égypte réglé lee boppam nu ko eh, Tunisie réglé lee boppam nu ko Kenya réglé lee boppam démb loolu bu ñu ko doon def peuple bi ñooy nag am ak ñoom affaire dañ naan soog a taxawal ne Diomaye taxawal na le ngeen ne yéen da ngeen di changer suñu projet de loi assemblée nationale da ngeen bëgg a changer loi yi pour à ngeen toog fi ba faw kenn du ko mën a dissoudre bu boobaa nag peuple bay dem à l'assaut bu boobaa euh, boobu amul wax boobu boobu amul ay yónni ay euh, policiers yu taxaw di ñu téye ay duñ mënuñu sax téye amul ay yónni gendarme de boobaa ñooy mbapp xolam mamb dugg ci biir assemblée la fekk fa ñoom Abdou Mbow dañ leen dóor ba ñu ba ba tasaare leen di leen leen dóor ba paccal leen moom ak président la ak ñeneen ak ñeneen billaahi amuñu fitam yéen tamit moo tax loolu bugguma ci sax wax bugguma ci sax xolal di leen may benn sax comme si am na njëriñ yooyu waxi dof la nañ laal nañ laal rek dara nañ leen nañ modifier dara ci projet de loi wala règlement bari ñoom dañ fay toog kenn du leen mën a dissoudre nañ dem <laughs> nañ ko def barke rasulaay keroog lañ gis lu mel ni njéeréer évasion njéeréer laa la wax xayaan ci kuy la ku dégg séeréer nañ dem <laughs> boobaa nag ngay comprendre ngay comprendre ba xam peuple bi ñoom ñoom dañoo mandé seen carrière toog di seetaan loolu waxi dof la rek loolu moom loolu jaru sax perte temps moo tax bugguma ci sax perte temps nañ ko laal rek nañ ko laal loolu dañoo toog seen pooju yaay wax rek wala ñu toog seen pooju jabar yi mu nooy ñuy ñuy ratatat si nañ ko laal on avance donc loolu Sonko amul benn droit dem assemblée nationale parce que dañoo dindi woon loolu mooy bi nga xam ne Macky Sall teggi na premier ministre ci réew mi donc Sonko mu ngi ci dëggam yàlla may na ko dëgg malgré que loolu so Macky moo ko doon def ndax ci pexeem ak bëgg-bëggam mais tey arrangé na Sonko mi ngi ci mi ngi ci njaaba jàll di xaar en attendant septembre dañuy dissoudre assemblée nationale bu ñu ko dissoudre nag ñu dem ay élection bu ñu demee élection législative majorité garantie bi ngeen jox askan wi askan wi encore une fois askan wi bu ko askan wi te ay député yoo xam ne yéen xam ngeen ne ñii musuñoo am benn benn lien de traitise entre yéen ak ñoom ñu taxawal leen foofu duñ fa taxawal benn parti politique mais taxawal leen foofu ak ak di leen jox seen ak yàlla di xeex ndax yéen di reyante ndax yéen di gar seen bakkan ndax yéen bu boobaa bu ñu bu Sonko ñëwee ñooñu lay jaamaar lool ñooñu lay jàkkaar lool def li nga xam mooy déclaration de politique général sans problème proposé wane ni nii lañ bëgg a réew mi ci côté yëpp nii lañ ko bëgg a doxalee et cetera et cetera bu boobaa day yomb donc loolu euh, léegi nag. bu fekkee Sonko am na droit am na droit bi amul droit dem assemblée nationale mais am na droit bi moom en tant que euh, sénégalais en tant que patriote mu yor déclaration de politique générale am mais proposé ko askan wi askan wi la rek de déclaration de politique générale ñëw taxaw def benn euh, dajale ay conseil juridique dajale seen peuple sénégalais bi mais loolu c' est extraordinaire c' est extraordinaire loolu bu ko defee fii 15 juillet ça sera extraordinaire loolu mooy wane ni BREC am na lépp am na gars yi bandi yële toogoon fee dañuy ànd ak Macky Sall dem parce que Macky Sall mënul dem bàyyi fi gars yi ñëpp ñu Macky Sall àndaloon ñu nekk ak moom di ko choisiral ay nervi di ko jëlal ay nervi di rey askan wi di ko jël armée di jox di jënd ñooñu association de malfaiteurs boobu yëpp comme Macky Sall dem na day ànd ak ñoom dem mënul ànd ak mënul dem bàyyi fii ñoom mënul nekk. Macky Sall kese reyul quatre-vingt-sept sénégalais dafa am ay gendarme chef gendarme yu mu jëloon yu doon rey sénégalais dafa am chef policier yu mu doon liggéeyoon yu doon rey sénégalais dafa am ñu doon liggéey daaf ñu mu jëloon ñu doon rey sénégalais dafa am ñu mu jëloon yeneen yeneen ñu doon rey sénégalais dafa am ñu mu doon liggéeyal ci administration ñu doon rey sénégalais et cetera et cetera donc ñooñu ñëpp ay criminel lañ ak kilim euh, délinquant financier foncier fiscal et cetera et cetera ñooñu ñëpp day ànd ak ñoom dem.